waa waaw consul kii moom euh, euh, euh, dépistage yi moom ñu ngi koy amal ci suba ba tey mhm. ñu ngi ñëw par benn par tuuti tuuti ñu ngi xool cas yi fii am bu yi jar référence ñu ngi leen di référé ci poste de santé ci service de santé yi nga xam ne jege na fii yi nga xamante ne mën nañ ko jël en sage fii. ñu ngi leen di jox garab yi ñu war a jël jox leen rendez-vous après ñu dem si structure am ba tey ci yi fi jege waaw yi fekk yi amul dara ñu ngi leen di defal seen counseling di leen wax euh, kañ lañu war a defaat seen i dépistage. hôpitaux yi bu mag yi ñuy dendeel bu fekkee ku xam ne jóge na ku jóge Touba la dinañ ko jox euh, mu dem hôpital bi mu gën a jegeel foofu bu dee ñu nekk fii soit hôpital bi gën a mag Mexe walla ba Thiès. nañ li nga wax sa kes sa li nga wax noonu moo ñu tax a jóg parce que fagaru moo gën faju te dafa cancer yi dafa nekk loo xamante ni dafa bëri léegi ci réew mi te nekk na feebar yoo xam ne diis nañ diis goo xamante ne ni bu la xësee ba dal du alal alal moo lay faj dafa metti faj bi metti na day ruiner mënuma laa ne benn nit mais day ruiner ay famille lenn rek lañ ci mën a aaro muy dépistage yi mooy li ñuy def nii dépistage yi rek moo ci mën a aar nit ñi nga xam ne loo xamante ne balaa muy si nga xam ne lii fii la jëm ñu teel koo fanq nga teel a jël yi nga war a jël nga xam ne doo egg ca feebar ba parce que bu ca eggee mën naa ne da ngay ruiné wu ba pare te doo faju loolu moo waral ñuy sonn ni di def dépistage yi ndax lu am solo la non non c'est pas la première fois si je ne me trompe pas bi mooy cinquième édition parce que depuis 2005 ñi ngi ñëw parfois nag ñu sote année mais du bëri benn yoon lay doon rek daaw ñëwuñu woon mais ren Euh, foog naa ne mooy cinquième édition. waa di leen jaajëfal bu baax waa ndax ni ngeen def nii am na solo parce que dina siiwal euh, li ñuy def ku ci ku ko dégg mën a jël ay matuwaayam te xam ni. di ni ngeen def ni am na solo torop parce que ku ko seetaan benn genre sensibilisation la parce que koo dee koo xam di nga gis di nga xam ni dépistage am na même si bu dul ko dëkk kuure dëkk feneen dina xam ne moom war na jug kat dem xool boppam parce que jigéen bu nekk at bu nekk war nga jug dem xool sa bopp ça dépend ci résultat bi bu fekkee amoo dara dina la nga defaat ko 5 ans après wala 2 ans après bu fekkee am na dara ñu teel la jox garab nga teel a fagaru si feebaru cancer. ñoo leen nuyu tey dañoo teew ci benn dëkk bu mag muy Touba Kuré Kalom ñu fi benn màggal bu mag a mag di 41e édition Kuré Kalom di nekk dëkku cosaan dëkku Serigne Touba. waaw tey ñu ñëwoon présenté na leen rek soxna Aïssatou mbaw di sët ci dëkk bi <laughs> bokk ci sët yi nga xamante ni maam moom ñoo sanc Kuré Kalom waaw muy màggal gu mag a mag a mag euh, fii ci Kuré Kalom la amee di 41e édition. waaye Kuré Kalom ma xaataa ko sanc Maxaat moo sëñ Kouré. macha allah programme bi riis na ndax bañ xëyee dajale nañ imaam yi nekk ci secteur bi yëpp ñu wàcce fi juróomi kaamil te lu jiite loolu doon nañ durus alxuraan xasida di ko jàng fi ci dëkk bi. ginnaaw loolu ñoo ngi woyal suñ programme def nañ julliti tisbaar def ay bernde ñoo ngi waajal suñ cérémonie ci kanam di heures loolu nag moom suñ problème la moom ndax ndox doon nañ ko jooytu yàlla dagal na am nañ ndox fu mu nekk nii courant mooy suñ problème ak yoon boo xamante ni day dugg ba ci biir dëkk bi ndax Kouré nag ay jullite fi dëkk ay jàmbur fi dëkk ñu nangoo liggéey fi dëkk ñu am jom fi dëkk te population bi macha allah bari nañ te nekkuñu ci benn caaxaan benn problème kon nag bëgg nañ ku ñu jàppale ci courant ak xamante ne day ñëw ba bi moom loolu daal moom ñoo ngi koy ñaan état moom mu gën na cee jàppale waaw ñu bàyyi loolu daal ñu bàyyi gën cee bàyyi xel bu baax a baax macha allah. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di siyaare bu baax di siyaare bokk yi fi daje yëpp di jaajëfal ñëpp di sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ euh, ñaane suñu borom euh, fekke bis bi suñu borom dogal ñu fekk ko ah euh, ñi ci sant yàlla bu baax a baax a baax nag di sant ñi nga xam ne ñoom lañ àndal liggéey bi muy ñi nga xam ne ñoo taxaw ak ñenn ci ñi nga xam ne yàlla dogal ñu fekkee waxtaan wi ñu sant yàlla bu baax di leen ci sant. waaw jiita dafa metti waaye ñu jiite la tamit maanaam day lu foor. ndax euh, mbooloo tànn nit ni koy yow yaa ñu doy loolu dafa dafa war a tax nit góor góorgóorlu def kemti laay kàttanam pour satisfaire ñi nga xam ni ñoo amoon ci moom yaakaar ba euh, jiite ko loolu moo waral coono biñ ci am sax yëguñu ko ndax euh, bëgg gun am ci li ñuy def bëgg a ñi nga xam ni maanaam ñoo ñu ci jiital ñu bëgg ñu am ci lu kawe seen jor moo tax duñ yëg sax liñ ci def wax dëgg yàlla duñ ci sax yëg ndax euh, bëggal leen daal moo ñu euh, mooy suñu yitte daal mooy suñu yitte mooy suñu yitte. waaw euh, maanaam ñi topp ci sama ginnaaw moom mën naa ni man sax ñoo ma gën a nekk jàmbaar ndax dama naan man dañ naa dama naan man maay président man lañ fal président Kouré waaye ñoom ñii ñooy samay président man dama koy wax à chaque fois parce que ci coono bi ñu am ci Kouré man sax man naa ne aw ko ci. kon buñ ma jiitalee ñoom ñu ànd ak man liggéey boobu. ñoom dañuy chaque jour ñoom soñ ak soññee la ci la ñu doon ci man ak soññee la ñu doon parce que euh, nga jiitu ba pare gis ku ki jiital gën laa nekk jàmbaar kooku yaakaar naa ne da war a góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax ñu ngi leen di sant nag bu baax di leen gërëm ndax man maa leen amal cant man parce que li ñuy def lépp dafa mel ni man lañ ko defal man ndax euh, nag euh, bis bi lu ci rate woon ñun ñi ñëpp ñoo ko bokk waaye man maa ci gën a yanu xaj na ndax dañ naan Omar président bi kon yaakaar naa bu bu fekkee dañoo réussir cant gi ñoom ñu ñoo ko moom. xam nga fii ab dëkku cosaan la dëkk la boo xam ne ñun fi lañ cosaanoo ñun jeunes yi yi ngay gis yëpp ñuy jàpp ci liggéey bi ñun fi lañ juddoo mën naa ni suñuy waajur sax fi lañ juddoo mën naa dëkk la boo xam ne euh, maanaam euh, ab daayira sax mën naa ne daayira la daayira la ak mbokk moo leen boole ndax ab daayira mbooloo moo gis moom daanaka mbooloom daayira la surtout mbooloom moo xam ne euh, mbooloom murid la. maanaam euh, ñun ñii nga xam ne nga fi gis ci dëkk bi yëpp mën naa ne benn famille lan benn famille lan ñoo bokk lépp nekk ab daara tamit mi même temps parce que ay taalibe Serigne Touba la ñun ñëpp kon yaakaar naa ne loolu day ëmb lépp daal. ak 41 euh, ans daal bu yaakaar naa ni euh, bu dee boo ci boole bii 41 ans lay nekk. maanaam ci subaak léegi bi ñu xëyee def nan wàcce alxuraan jàng alxuraan maanaam wàcce nan fi bu ma juumul ñeenti kaamil mën naa ne juróomi kaamil sax. ndax wàcc na ñett fii ci baas bi wàcc ñaar fee ci ñàngeen kon juróomi kaamil jàppal ni euh, jàng nañ ko tey ci bis bi. te euh, ci ngoon get euh, léegi incha allah bu 17h day am fii cérémonie officielle ci ngoon gi bu yàlla dogalee ñu reer ba pare conférencier bi ki sëñ Gana Messere moo fi waxtaan bu neex yàlla. lu jiitu Gana Messere di fi waxtaan it am na ay jànkat yoo xam ne dinañ feeñal seen yéene ci bis bi. mu mu mel ni euh, ñu ci ñu ci mel ni ay sëñ kii mi nu mu tuddati euh, euh, sëñ Omar Mbow Thiès ak sëñ Fallou Ndiaye ak sëñ sëñ Abdoulaat Koundoul nga xam ne ñëpp ràññee na ko ci am njàng ñoo ñëpp dinañ fi feeñal seen yéene waaye guddi gi ki ko yeggale tamit sëñ Mara Seck lay doon bu neex yàlla ñuy sàkku ci mbooloo mi it képp koo xam ne teew nga ci bis bi bëgg na nga génn ci tant bi teewee bis bi ndax lu am solo la. ndaw yi li ma leen dénk rawatina ndaw yi nga xam ne fii leen cosaanoo ci dëkk bi. mooy ñu gën góor góorgóorlu bu baax gën a jàppale jàppante ndax euh, ñun euh, li ma wax rek ci commencement bi ñun fii mooy suñ dëkku cosaan te yàlla dafa dogal ñu ñu bokk lépp te yaakaar naa ne mbooloo sax euh, lislaam da koo bëgg mbooloo rawatina nag mbooloo moo xam ni mbooloo moo xam ne ay mbokk lañ te bis bi nga xam ne moom la ñuy taxawal fii muy bis bu Kuuré Kalom bi ñun ñu war a xam ne ñun amuñu bis bu féete lii kaw ndax bis boo xam ne dañuy xëy jàng fi alxuraanu karim fanaan dafay jàng xës de ba bët set. yaakaar naa loolu ci histoire murit euh, bis du ko féete kaw kon euh, jeunes yi nga xam ne ñoo cosaanoo fii yëpp bis bii nañ ko gën a fonkaat bu baax a baax a baax te xam ne ku la ci raw dalay raw ba faw kon nañ ci doole góorgóor bu baax loolu daal message la boo xam ne dinaa ko jàllale ci euh, sama moroom xale yi nekk ci dëkk bi merci beaucoup jërëjëf. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh yéen mbokki Kuure Kalom maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen jox seen wàccuwaay. comme ni ma koy waxee toujours rek di ñaan yàlla sunu borom may nu fan wu gudd ànd ku wér di ñaan yàlla mag ñi nekk ci dëkk bi nga xaay si tey ñooy sunuy waajur sunu borom bàyyi leen fii suñu guddal seenu fan wéral leen kartanal leen ndax kat li wolof njaay di wax naa peccum niir boo neexee yaa jaa jàpp ci mbag ya kon sunu waajur yi nga xaay si ñoonu jur ñu fekk leen ci dëkk bi ñoom kon ñoon ñoom ñoo waral lii kon nag ñooñu nañuy ñaanal yàlla ña jiitu ak ñi fi nekk tey ñëpp suñu borom ña jiitu yàlla xaare leen àjjana yi gën a euh, kawe ñii fi des sunu borom bàyyi leen fi ak noonu ba ca kanam ñu am fan lu gudd ak wér man mi nga xay si nag bokk naa ci ñi nga xay ni si bokk naa ci xale yi nga xay si ñoo jëkkoon a ràññeeku ci euh, màggalu Kuré Kalom maanaam tey mën naa ne ci mag ñi laa su ma nee ci mag ñi laa dana naan dana ñu bari danañ ko euh, xam li tax ma di ko wax su ma nee ci mag ñi laa mooy xale yi nga xay si ñoo topp ci sama sama ginnaaw di samay rakk ñenn ñi sax di samay doom mën naa wax loolu ñooñu tey la ma bëggoon am naa ko mën naa ni man sama ndam la waaw mën naa ni lii lii ñuy def nii tey di màggal gi tey mën naa ni man am naa ndam ndax lu ma yàgg doon bëgg la di ko xeex ay année année année waaw ànd ko ay nit ba yàlla dogal tey xale yi nga xay si ñooy suñuy rakk ak suñuy doom jóg jël loolu tey di def loo xam si ñun lan nit ñi ci nekkoon doon xeex nan ko mën a woon mën a nin ko mën tey ji ñoom xale yi ñun mën a woon ko parce que bokk bokkuñu jamono ndax ñoo bokk jamono waaye xaw nañ noo raw tuuti ci ci ci ci ci ci ci ci ci àdduna moo tax tey ñii ñu ko jëlee tey ñoom ñu mane ko nii ba ba bis bi mel ni mu mel kon ñooñu amul lu leen sant leen te gërëm leen dinañ ñaanal yàlla mi nga xam ne si nag moo yore ak mayam te di ko maye muñ may ñaan xale yi Kuré Kalom yi képp koo xay si xale nga te cosaanu Kuré Kalom yalla na la yàlla def ci milliardaires yi Serigne Touba yi yàlla mal na ko yàlla ko yàlla def ndax gis naa ne ñoom bu ñu amee wërsëg liñ bëgg nun ci dëkk bi dana ko am ndax tey dëkk bi ñii fi nekk tey nga xam si ñoo téye màggal gi mel ni mel naa ne tey kenn yeewu fi Kuré Kalom fi la ñu cosaanoo juddoo fi yaroo fi mais déplacement day am ci jamono mais tiw ñoo dañoo retourné waat gën noo bëgg nun ñi nga xam si ñoo fanaan ci dëkk bi gën noo bëgg dëkk bi gën noo jàpp dëkk bi di def ci dëkk bi loolu ñun ñii fi fanaan di fi yendoo defuñu ko kon nag loolu ak cant la lu nu yàlla defal na ci fii ci Koura Kane nañ ko sant yàlla bu baax di leen ñaanal di ñaanal ñëpp tubaarikàlla macha allah. waaw bis bii moom euh, di sant yàlla bi ñu ko yàlla fekkee loo mu nekk bis boo xamante ni euh, mën naa ni dañoo juddu fekk ko fi euh, suñuy waajur da di ko def suñuy waajur nag dafa am ci ñun ko jëlee muy ci sunu yaakaar muy ci njabootu Serigne Touba gi ñoom ñu leen ci joxoon ndigal. te ku bokk ci Serigne Touba lépp lu mu joxe ndigal rek tànk kanam lay am du am tànk ginnaaw ñoom ñu doon ko doxal ñun ñu gis ni lii nii njariñ la parce que dafay dajale ah ñu jël relève bi relève bi nag ah biñ ko jëlee ba léegi tey ñun ñi nga xamante ni ñun ay ndaw la dañoo ànd ak suñuy mag suñ mag yooyu nag ñu nekk ñoo xamante ni vraiment nit ñu euh, bëggal kuure lan waa ñu topp ci seen tànk yàlla bu boole ñu ñu dajaloo tey tey jii mu nekkoon la 29 bi ñu ko fi doon defee fii ci Gouye Kalom ñu ñaan suñ borom rek képp ku fi ñëw ak foo mën a jóge yàlla may la nga delluwaat si jàmm comme ni nga ñëwee woon si jàmm ah, képp ku fi ñëw indaale fi aajo ah boo delloo yàlla faj ko képp koo xamante ni yaa ngi biir kuure suñ borom defal la jàmm defal la tiraanga defal la tawféex ah, boole la ci milliardaires yi. ba lépp lu nit di mébét ci àdduna ci lu baax rek suñ borom defal la ko di sant bu baax a baax nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci bopp bi muy euh, suñu président ku mel ni Omar Mbow ak euh, équipe bi mu àndal di liggéey mu mel ni sama frère Mandiaye ah sama mag Bada Mbow suñu père Ndëri Mbow ñu nekk ay nit ñoo xamante ni ay référence dañ ci Kouré ay jàmbaar lan nit la ñoo xamante ni vraiment lu baax la ñuy digal nit ñi man damay wax que ni su ma bëggee Kouré mbaa am ci benn yëg-yëg si ñoom la kon gàmmu gi nii ñu ngi ñaan suñu borom mu saxal ko fi yow tamit euh, li ngay def nii ak waa euh, Bawal Média suñ borom yokk ko ba mu law ci àdduna bi ba nekk loo xamante ni àdduna bi yëpp a koy seetaan ñu ngi koy ñaan suñ borom ci bisu màggal gi ci ndigalul Cheikh Abdoulaye li nga xamante ne moo ñu ko defoon ñu ngi ziar ñëpp di gërëm ñëpp di jaajëfal ku rekalam gi yëpp jaa ngeen jëf. li ma koy tëjee mooy waxoon naa ba pare waaye. wax waxaat yàqut day defar du bari wax day defar rek am yooyu fattu maanaam dëkk bi dafa bokk ci dëkk yi nga xay yi dafa bokk ci dëkk cosaan yi nga xay si ca dammeel ak teeñ ya la commencé woon ba léegi ndax boo calculé dëkk bi ñeenti téeméeri at mat na ko dëkk boo xay si ban ko sancak léegi na ñeenti téeméeri at tey fii may wax ak yow population bi fi yeewoo tey nga xay si ñoo cosaanoo Kouré Kalom boo leen calculé woon ay junni nit lañ ay junni junni nit ñoo fi ne dëkk bu toll nag bu amee maanaam nga war na noo man di am ndox mu doy courant bu doy boo xay si war nañ ko am te amaguñu ko te dëkk boobu population bu toll noon di yeewoo ci boobu dëkk loolu jaarul ci réewum Sénégal defoon na ni loolu muy Kuuré Kalom gii defoon na ni loolu jeex na ci Sénégal ay junni nit fu mu yeewoo ay junni junni nit nekk ci ab dëkk boo xam ne dëkku cosaan ba ay ñeenti téeméeri at am na ko ba léegi amaguñu courant ba léegi amaguñu courant loolu defoon na jeex na ci senegal loolu la laanoon dinaa ko jàllale ba autorité bu ko autorité bu ko mën a dégg ak koo xam si jigéen kenn koo xaalis ku jëm ci état nga jàppale ci ba dëkk bii am courant muy Kuure Kalom